jërë ngeen jëf Macky Sall mu mer ba saxaar moo nekk ci xëtu njëkku la témoigné réew mi quotidien vox moom journal la woon ba ñuy amal ndaje mii di ida 20 ci hôtel King Fahd Palace ay kilifa yu mag la fa dajale woon ñu doon waxtaan ak a sottante xalaat ci nu ñuy def ba suqali Afrique bi kilifa gu banque mondiale bi jëlee kàddu gi di wax ci la courant ba coupé jëf ju rus joojee le quotidien nee nañu moo xunnu président waa ji xolu mer ba fut moo waral bi mu jëlee kaddu gi di wax li mu njëkk def mooy ñaawlu coupure courant ba am ca ndaje ma ba wax ne incident bu ni mel kenn waru koo bàyyi mu jàll te dara waralu ko lu dul am na ku deful li mu war a def Macky ne bu amee li ci war moo di sanction réew mi ko tuddee moo di la colère noire du président président Macky xam le ne coupure bi dafay firndeel ak cuune gu xel mënuta nangu enquête dolli ñu ci ne am nay xibaar yu leen wax ne moo ne day hôtel ba am na centrale bu am ñetti groupe électrogène yoo xam ne bu courant bi coupé dañoo war a déclenché Pape bi Bitèye directeur général bu Senelec anki dina kay nee nañu moom fi saa si la déclenché ay sanction ba am ñu mu tëbal Vox Populi di ko dëggal ba di ñu wax ne lu mu néew néew directeur général bu Senelec tëbal na ñetti directeur benn chef département benn chef de service ak ñeneen te naru faa yam ne ñoo ngi séntu yeneeni sanction yu war am ci hôtel King Fahd Palace l'observateur nañu juróom fukki seconde moom la coupure bi def Macky Sall mer ca buy futt ndaje mi loolee lépp xewe soleil national moom la xëye waaye ci weneenu anam bokk na ci li mu ñu ne lu jege juróom-benn fukki milliards maanaam 59854 yu banque mondiale fas yéene teg ci taabal ji ngir jàppale ko Afrique la nañu Macky Sall kàddoom ca ndajam démb ma yëkkatil ko Afrique ngir procédure yu taat yi nga xam ne banque mondiale mi ngi koy teg léeg-léeg ñu woyofal ko ba mën a génne Afrique ci ñàkk gi ko sëkkatal maanaam ci gàttal li président bu Union africaine bëgg moo di banque mondiale dawal yërmande yërmande bu juge bi moom la direct news ñaan ngir élèves yi ñu topp ci yàq yi amoon ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff journal def jekkul jaaduwul waaye kañ la fi soowum ginaar ba ñuy ngalaa bi cuuc élèves yi ñu bëgg a sanctionné ñi leen bëgg a xanaa dañoo fàtte ne ci Sénégal gi la ñu fi gis ab député bu bokk ci nguur gi taxaw di sàkku ci militant yi APR yi ñu jug gàddu jaas yi corante ngir mën a may président bi fi nekk mu am troisième mandat te ba léegi kenn déggul justice mu wax ci ci Sénégal gi la ñu gis ay manifestation am police ak gendarmerie encadré ay nervi ñuy dàq ay manifestant yu àndul ak waa Benno Bokk Yaakaar di leen fitnaal te ba léegi kenn déggul justice mu wax ci ci Sénégal gi la ñu gis ab opposant bu juge procureur mu ne militant yi nañu wàcc ci mbedd yi manifester ñu def ko ba salfaañi dëkk bi te kenn déggul justice bi mu wax ci ci Sénégal gii la député Doudou Wade mbeje woon Aline Sow mu rëy ma te mujjul fenn ci Sénégal gii la Ousmane Sonko ak Mbéri si la raage woon raag bu rëy ba ci assemblée nationale ku nekk génne di bàkku naan wulli na moromam te ba léegi kenn déggul justice bi mu wax ci direct news nañu yi yëpp xew na fi ñu muu ko te bu ñu fàtte Macky Sall dafa bañ Casamance bañ waa Casamance bés bi jour nee nañu kàddoom yooyee nation bi la moo taxit bari nañu yëkkati seen kàddu di ko ñaawlu ci ñooñee yëkkati seen na Casamance ji di Aminata Assome ministre du commerce ñaawlu na waxi Ousmane Sonko ba waxit ne jug jàmmaarlak Ousmane Sonko jot na ndax day nit koo xam ne intérêt boppam a ko ñor te jaral na ko lu nekk Lat Diop directeur général bu LONASE ñu ci Vox Populi ab fractionniste ab ci diggante kilifa yi yore basketub réew mi ak Boniface Ndong di entraîneur basket bi ñu dàqoon bu yàggul ubbil yéenekaay bi leeral yu Boniface Ndong interview bu maître Babacar Ndiaye président fédération Sénégal basket ba ci réunion bi joueurs yi defoon ci Ndakaaru ak fédéraux yi ba ñu jugee ci Égypte lépp mi ngi ci page 11 ak 12 bu l'Observateur. Insia assurance oto seen parfum yu neex yi di Saphir gamme Clarissime ak déodorant Malaysia Humo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bek rajo Futur Media xibaar yi fii lañ ci yéem ak yéen dafa pàttali ci li ci gënoon a fës euh, fukki xale ak ñaar yi ñu teg loxo gannaaw la xewoon ca lycée Ousmane sembeen bu yoof tey lañu leen di euh, atte ci kanamu tribunal flagrant délit bu Dakar yàq moomeelu nguur gi la ñu leen di toppee am ay parents d'élèves yu jóg ne atte bi moom mënta ñàkk waaye bu ñu tegi daan seen kaw tabaski di gën di jege njëgu xar yi mel ni luy gën a yokk ca Tamba euh, njëgu xont bi daal moo fa yokk ba upp bopp éleveur ya bu dee ca Jurbel moom paas ya la ñu fa yokk ba mu jaaxal ñi bëgg a dem maire bu Patte d'Oie coow laa nga mel ni sabar bu tas ku nekk di tam sa morom maire ba euh, lañu maire ba daal ay conseiller di ji luubal may mun a jëy yëkkati loxoom euh, ca kaw ne fu ko neex jaar te du sëgg ndax dara amul ca la ñu koy waxal dadi kay ku sa wujju di sëlëm doo set mu ne lépp leer ca na muy doxalee mairie ba boobaak léegi agent ya koy tuumal nag tey ci ngoon lañu ñu fas yéene la ñu ko fas yéene tontu ci ab ndaje gu nuy seq ak taskatu xibaar yi. aju makka wala boog aju makka ji tey la étape bu Arafat. Euh, mooy bi gën am solo ci aj gi bés la boo xamante ne li ñu tàmm ci jullit yi mooy ñu woor ko tàggat yaram àndoon nañ ceeg Mohamed Diop xibaari aada yi Ana Rocha li ci yéen kaay la ñu jëmeeku démb ca King Fahd fekk njiitu réew mi Macky ma nga fa woon ñu doon liggéey ànd ak yeneen i moroomu chef de euh, chef d'état am Sall nag ba courant ba coupé la mer lool euh, ba tax na mu ne dana ci jël ay dogal ndax lii day wane ne Sénélec mu ngi ci contre performance te loole munu ko nangu moom Macky Sall ñu teewlu ko. dama bëgg a leeral laataa may tàmbali ne coupure bi fi am léegi signe de contre performance la xel mënul nangu ñuy wax waxi émergence ba noppi nag lu mel nii di am te nag li ko indi moom moo di am na ku deful liggéeyam ci ni mu waree Afrique nag tàmm nañu yu mel nii moom bu amee duñ ci teg kenn ay daan waaye bi la yoon moom faw am ñun ci rëq seen digg ndax nag sanction moom mënul ñàkk ndax nag mënuñoo am ndaje mu am dali bi ba noppi responsable di sàggan ba courant bi di coupé defar naa sax euh, centre bu am dayo bu mën a jël ñi fële ca jam waaye ku nekk xam na ni ci jamonoy tabaski bi lañu nekk ak nit yeeg ni ñuy déplacé woo ko talibeek nu muy feese loolu tax ma ni woon nañu tee gan ñi fii nii ci Dakar waaye nag euh, li am tey moom protocole bi dina ko régler ba faw ndax nag euh, suñu bëggee avancer faaw ñuy jëli daan ndax li moom doxul. njiitu réew mi Macky Sall démb ca King Fahd gannaaw ba mu doon bokk ci ndaje boo xamante ni dafa jëm ci euh, IDA vingt mu di sommet boo xamante ni dafay dajale chef d'état gouvernement yu Afrique euh, ngir ñu xool ci benn programme ngir gën a ñoŋal wàllum euh, développement banque mondial nag ci loolu xibaar na ne dana génne lu toll ci quatre vingt ci ay dollars boo ko méngale boo ko méngaleeg sunuy koppar soixante mille milliards CFA la mu di koppar yoo xamante ni dañ koy jox réew Afrique yi ngir ñu dimbali kooku laata tàggat yaram. ñu wax ci xibaar bile euh, mu di génnuk àdduna taskatu xibaar bi di Eugénie Roqeya Aw moom nag ni ki tey jii lañu koy jébbal suñu borom messe bi di d'inhumation bi daa ñu ko amal ci kanam tuuti bu onze heures yo jotee maanaam yoor yoor gi buñ ca noppee jébbal ko suñu borom euh, ca sëkk ya nekk ca euh, Saint-Lazare bu Béthanie ñu koy ñaanal yàlla suuf woyof ci kawam te yàlla xare ko àjjana journal des sports dañ ci ànd ak Mohamed Cio Diop. dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñu koy tàmbalee ak Matar Ba kàddoom yu njëkk gannaaw bi nga xamee ne fédération sénégalaise de basketball ak seen sélectionneur national bi di Boniface Ndong tàqalikoo nañ loolee nag Matar Ba di yëkkati ay kàddoom yu njëkk di xamle ne état bu Sénégal amul lu muy yee yàbbi ci fédération ak sélectionneur buy tàqalikoo li mën rek moom mooy bu fédération tànnee ab entraîneur ñu ànd ceeg moom jàppale ci wàllum salaire beeg yu ni mel ñu teewlu Matar Ba ay kàddu yu mu yëkkati dénk ko Soda Thiam. suñu demu Égypte conséquence yu maam tukki bi gis ngeen ni mu xawoon na méttee ci loo xamante ni du ci coobare état du Sénégal du ci coobare it fédération sénégalaise de basket mais waaye ba ñu ko signalé it wax ceeg ñi ñu ci war a waxal jox nañu beneen document bu tax équipe bi yegg waaye lu mu mënti demee am na lu mu def ci bokk ndaw ñi am na lu mu def ci groupe bi parce que de haut niveau bëggul détail ba ñu demee it terewul euh, am nañ fa benn ñu mais terewul ñooy ñetteel ñu ngi ci course bi ba mais li am solo mooy fédération aussi dafa am niveau de responsabilité bu mu am tey Aliou Cissé Augustin Senghor ak directeur technique waa fédération ñooñu ko andil ñun ñu nangul leen ko di jël li nga xamante ne mooy koppar yi ko war a jël en charge basket aussi c' est la même chose beneen discipline aussi c' est la même c' est du jël seeni i entraîneur bien vrai que dinañ leen ci accompagner am nañ ci ñu ci mën a war a wax waaye seen responsabilité la kon bu ñu jëlee kenn dem ba gis ne dañu seq tàggalikook moom euh, dinañu xool càmbar ba xam waaye lii suñu priorité mooy naka la ñu def ba accompagner leen ba bu ñu amee beneen équipe équipe boobu nekk équipe boo xamante ne day am ci réew eggagul niveau boo xamante ne mën nañ ci dugg di wax lu dul en tout cas wax képp ku nekk ci sport bi ngay fédération ngay ministère ngay ku mënti doon sa devoir mooy ngay jël say responsabilité en toutes circonstances. mu nekkoon nag ay euh, kaddu yoo xam ne euh, Matar Ba mu ko doon yëkkati ci micro Soda Thiam ministre des sports Matar Ba doon présider réunion bu ñu jagleel ubbite nawetaan atum deux mille vingt et deux mille vingt deux ji ndaje moo xam ne ab CRD la woon comité régional de développement ci chambre de commerce de Dakar foofee nak ay matukaay yu am solo lu jëm ci wàllum violence ñu fexe ngir xeex ko waaye Matar Ba di ñaawlu ñàkk teewaayu maire yi ci réunion bu am solo bi compte rendu Soda Thiam. ci réunion CRD boobee jafe-jafe yan fa doon waxtaanee yépp indi nañ ci saafara ba mu des lu jëm ci wàllum violence foofe nag bu ñu sukkandikoo ca jëw gi ñu dénk wàllum tàggat yaram am na lu bëri luñ ci war a defaat moom Matar Ba xamle sax ni ña nga xamante ni ñoom ñooy indi loole saa su ne war nañoo rëq seenub parce que boole du mbiri leneen mbiri ñu xamante la donc bu ñu ñëwee ci stade am ku fa andi lu ci bokkul même bu ko police wala gendarmerie gisul ñi yore yëf yi war nañoo fexe ba xam kan la ñu teg ko ci yoon wax ko gendarmerie wala wax ko ko defee ba nga xam ne lu ci nit def da lay leer ne àla kuli àlin doo rëcc léegi nit ñi gën a wàññi li nga xam moom lañ def ci koo xamante ne nag ba nga jógee yàq moo la tax jóg suñu la gisee dañ la war a dénoncer teg la ci yoon comme texte yi moom nawetaan dafa prévoir enquête nañ ko gën di xool ba xam ci lan lañ sukkandiku pour créer da ASC dem créer beneen loolu bu amee rek loo xeex lay jur. ministre bi nag daal di nay profité ci ndaje moomee ngir daal di ñaaxaata ñi nga xamante ni ñoom ñoo di maire yi. ndaje yoo xam ne dañuy jël ay décision bu ñu dañuy bëgg maire yi wala ak président conseil départemental ñu ñëw teew. Euh, fekke ko dinañu yónnee nag waaye li gën mooy ñu ñëw teew parce que lu am solo la mbiri tàggat yaram kenn mënatu koo fëlantal dañ ko war a gën a jàpp parce que compétence transférée la waaye li mu occupé ci réew mi war naa mën a tax buñ ciy waxtaan kilifa yëpp ñoo teew. lu jëm ci wàllum infrastructure nag ministre des sports daal dina ciy dalal xelu acteur mouvement navétane yi ñoom ñooñee nga xamante ni nag mbir mi daal dina leen di neex trop te ñu am yaakaar ni navétane yi dina jaar yoon. am Thiam jërëjëf jeexal xibaaru tàggat yaram yi ak mercato bu gaynde yi tàmbale kook Cheikhou Kouyaté bi nga xamee ñoo ngi koy séentu fële ca Turquie xibaar sax ñu xamal ne euh, li nga xamee ne mooy agent bi ñoo ngi ko doon seen ca Istanbul ci alxemes bi li nga xamee nag mooy yéene bi mooy waxtaan ak Trabzonspor bu fekkee déggoo am na Cheikhou Kouyaté mi nga xamee ne jóge na Crystal Palace euh, ci fanweeri fan ci weeru juin bi ñu passé daal di xaatim ab contrat ci euh, Super League bu Turquie Ismail Sarr moom mu ngi wat ford ba tey waaye boo sagganul mun naa dem ca West Ham West Ham mi nga xamee ne jamono ji mu ngi ci première ligue bi waroon dem ci tournée pré-saison ak clubam bi di Watford waaye jotul dem ca Autriche ànd ak ñoom ci préparation bi ba tax na xel yépp njort ne boo sàgganul fileeki waxtu wala ay fan mu daal di xaatim contrat ci première ligue bu Angleterre mbokk yi li mu nekkoon xibaaru tàggat yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ci àndoon ak ñun ci teewlu bi. jërëjëf Mamadou euh, Mohamed Jo Diop euh, ñaar fukki simili euh, moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. rajo askan wi ñu dalal Anna Rocha ci euh, chronique culture bi maa leen di nuyu mbokk yi théâtre national danielle Sorano dalal niki euh, démb alxemes projection nationale bu njëkk film bi ñu dippee Omar Blondin Diop un révolté mu di film documentaire boo xam ne di jigo moo ko réaliser muy dellu siwaat nag ci anam euh, yi Omar Blondin Diop génne adduna ci kaso bi ñeent fukki at ak juróom-ñett gannaaw kon bu mu ñàkkee kenam Mamadou Ly taarixu Omar Blondin Diop yitteel lool réalisateur cinéaste bi di jéji jigo ba tax mu jagleel ko ab film long métrage liste. j'ai man maa jël dogal concentré wu ci ay nit yu fekk baax fii ci réew mi ngir gën a mën a wane li nga xam si moo di histoire bi waaye tamit recherche yi nga xam si def nañ ko ci nit yi keneen koo xam si moom la ñu ndowal muy kon Oumar Sall Paloma ci la ñu gisee ni faaw ñu amal ci ab long métrage. Oumar Blondin Diop un révolté ni la film bi tudd mu yokk ci ne. ab dossier am dañ ko war a moo témoignage yëpp daanaka ñoo bokk lu ñuy wax. procès ba na mu demee woon daanaka am nak lees waxul ndax nag nit ki nga xam si moo nekkoon ndeyu bi léegi loolee itam moo waraloon ñu génn ci verdict boo xam ne si daanaka bokkul ak dëgg gi. voilà. ay xaritam jege ñaaleem ñoom ñëpp di sàkku yoon jip si mbirum Blondin Diop. ce film bi liggéey la boo xam si daanaka dañ cee def suñu doole bu baax ay at ci lan ko liggéey li ñu bëgg nag moo di lépp daal di leer moo tax jamono ji tegal nan nguur gi ay piste yu leer nguur gi nag jamono ji bu fekkee ne bëgg na ubbiwaat euh, procès bi lépp yem na ngir ñu dem ci amal ko waaye itam jaarale ko ci instruction. Omar Blondé Diop doon opposant bu régime Léopold Sédar Senghor ñàkk bakkanam ci détention fële ci île de Gorée ñeenti fukki at ak juróom-ñett ginnaaw ba ñuy xaar dëgg jib ñu bëri ñu ngi xaar rapport euh, fukk ak ñetteeli édition biennale de l'art de Dakar ay euh, jafe-jafe yu bëri nag daal nañ ko nemmeeku ren ci organisation bi am na sax ay œuvre yoo xam ne dañ ko daal di euh, vandaliser ci yenn site d'exposition bi waaye bu ñu sukkandikoo ci directeur artistique u Dakar 2022 bi lépp dina leer ci anam yi mbir mi demee docteur Malick Ndiaye. waaw je pense que liggéey boobu noonu am nañu ci jot a wax. mais instant bi nii fi ñu toll mooy euh, regroupe œuvre yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñu defaat leen ci seen i carton ak seen i kees yóbbu ko artistes yi ak dëkk yi nga xam ne foo lañ jóge woon dëkk yi dañoo bari ci liggéey boobu la ñu nekk euh, direction artiste ak secrétariat général de la biennale maintenant euh,